daaw mu ngi woon kasa ren mu génn ñëw na day remercier public bi Gafaka Gafaka waaw daaw quand il était en prison y avait tout le monde qui se disait Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé merci Ngaaka kay lu tax kaay dik dugal waaye tey dugal damay dugal damay dugal match bi fi mu ne jaaxle rek ndax dañ ñoo mëne 4-1 lañ ñu mëne waaye nag yàlla baax na ñu ngi ci deuxième mi-temps bi buñ duggee léegi régle situation bi donc di ci kontaan nag bu baax a baax a di wax ne lii initiative bu rafet la la fait que yi dajaloo nii ñu bokk ndey bokk baay saafante bi rawatina suñu soppee yi nga xam ne fu ne la ñu nekk ci àdduna bi bu ñu mënul ñëw sax ñu ngi ñuy seetaan ci tele yi donc ñu ngi koy rafetlu ak ñi fi teew ñëpp di wax ne yàlla na yàlla dolli jàmm lii ku ci mën a jàpp rek nañ ci jàpp pour mu jëm ci kanam waaw donc kon mbir mi tey saafara mbooloo la kuraay da ngay jox sa morom rek donc gars yi dañ de nañ xaar nañu xaar rek ah waaw ñu ngi ñëw ak lu bees tàq nay neex incha allah nañ ñu xaar rek léegi tey incha allah sama xol neexul quoi parce que tamit ñun bu ñu ñëwee nekk nekk ay tout tànk nan ñu dugal quoi ñu fubal ñun mënuñu gagné barke Serigne Touba fubal condition la laaj ak physique ah dëgg neexul gars yi ay jàmbaar lañ mais tamit ñu dugal ñun booy ay place kay ay pamma ah ay ñoom caat gars yaa ngi fi nan dugal ay Talla Diasaka ah non man comprendre bu quoi mais mer naa trop kontaanu ma barke Serigne Touba. looloo ma jaaxal damay waaj a génn sama kër trois minutes bu diggante bi diggante bi rappeur en faveur des rappeurs dana mbay toog gars yi ma a dem rek léegi pas Serigne bi nga xam ne moom moom la joxoon xooy ba mu ñaan pas Serigne bi dégg naa non non xam nga dama doon fekk ñu daa foobat xam naa rappeur yi ñoo leen